tey ñu ñëw ji xool si liggéey bi nga xam ne moom lañ fi commencé bu yàggul mu nekk teen boo xam ne suñu ay partenaire mooy ñu leen ko financé muy beneen association boo xamante ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ maanaam bi mooy cinquième juróomeelu teen bi nga xamante ne ñoom def nañ ko fi te def nañ ko si ay dëkk yoo xam ne xamuñu sax fa la dëkk yi nekk mais dañ ko def rek te yàlla tax maanaam ko dañ ko def ngir jàppale teen ko waa dëkk yi yàlla leen yàlla fay seen jëf jooju ñu def te vraiment seen morom parce da nga taxaw di seen askan di dimbalante gi nit yoo xam ne xamuñu leen loolu mooy def sa yàlla sax ndox moo xam ne soo ko fi bënnee doo ba sa ñëw sax pour naan fi mais liy sedd soxol rek mooy nga yëg ne am na ñoo xam ne te teggil nga leen coono yaa neen yàlla fay ñëw fi ñëw tey mbokk bi teew fi muy basi muy euh, Fadel teewal fi ma teranga ñun nag ñu bokk ci association bi du sàkku yu dan ɗon ɗum ɗo ko amin belti hen no mu ne li ngeen indil dëkk bi ñoom dañ see kontaan lool lool amin belti wuro ngo fof ne welti debbo hen gorko allah jarama on jarama on jarama no fewi allah yo moƴƴere wuuro amen kadi wongo nana amin jiiɗi ɗon woyni galleji ɗi nana amin ɗon amin jiiɗi wallede hen jaro jof on jarama on jarama yallah yo moƴƴere minen nde min galano ndiyam nde mawn sept kilomètres. yu toll ak sept kilomètres lan lañ coon. mu ne fële fële ngeen di gis garab yële si kaw. coon réew be yow goyta. mu ne jigéen ñi foofu la ñu dem pour indi ndox. rondo ndiyam. mu ne yenu ay paan ndox. yana heen. di si daanu. ummo heen. di si jug. waasa addude ni hay dara. bañ sax indi dara. jarajof eh, moon on jaara min beltimano suka heen mawɗo heen mune haale ak e fof goori welte moon contant nan si yéen yalla juunu balɗe ɗe min beltima e moon contant nan si yéen wallahi xal mm. na fa seet bel tiran fi bu ne min juurima moon mu ne sant na leen baax leen amin ñagano balɗe juɗɗe battane moon min jetti moon min jaari moon amin belti e ko mbaɗɗon hen gila suka ha e mawɗo gila e dawɗo ha e jooɗiɗo amin beltanimo on tinnimo ko mbaɗɗon ko amin belti hen wonno ko minen goni rewɓe minen goni ƴogoyoɓe tawi komin lori tawi min lorli ala fof tamperede min jiyaneji so min dañi ɗum ɗo ene hani min belto min jetta on sukaɓe rewɓe ɓe ɗon mune haala e jigueji nek so dëkk bi ene jogui sardin ne amnani ay sardin ene mbanno robin robin o ne tampiniɓe ene heewi kalis ɓe mbi kamɓene aɓe jiiɗi wallede e ndiyam mune ñolen ñalan yaala walde juutɗe battade moƴƴe gorgo yorama kiñagam bisimilla moon bisimilla so dëkk bi assalamu aleykum assalamu aleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, di leen ziare ñëpp man maa ngi tudd Mohamed Fadel Mané man maa fi représenté waa Mama Teranga di dimbali nit te xamoo ko lu am solo la. zone yi comme niñ ko waxee xam nañ ne ndox dafiy manqué ndox dafiy jafe te ndox. Eh, ndox mooy nit ndax ndox ci la nit di naan ndox ci la nit di sangu ndox ci la nit di di jàpp je pense que nit di am ndox nag saa su ne lu am solo la ah, eh, comme ni ngeen ko waxee eh, ut ndox métti na root bi métti na parce que jigéen ñi ci la ñuy togg jigéen ñi ci la ñuy fóot nit ñi ci lañ sangu ci lañ sang xale yi donc euh, je pense que ñun message bi dinañ ko jàllale ndax chef de village mu ngi wax ne am na beneen dëkk bu nekk fële ñoom tamit amuñu ndox incha allah fii ak mhm. ñu mën a am beneen teen ba ñu ànd ak chef du village ñaan gi nga ñaan pour ñooñu am teen ñu ànd foofu ba teen boobu ñu mën ko inaugurer ak waa Sakku Yiw mhm. ak waa Mama Teranga ñun ñëpp ñu ñëw ànd ak ñoom inaugurer teen boobu incha allah yàlla bàyyi ñu fi ñu fekkee ko tal tal ko incha allah barke Seydina Muhammad jërëjëf